ci élection parce que dañu am yoon yoon bi nga xam mën na indi Sénégal te yoon Sénégal sama sama loxo ci kaw ko doxal Sénégal parce que yoon bi nga xam dafa sukkandiku ci liggéey du ci xaalis pour mu il faut que liggéey ñëw mais liggéey pour mu il faut que moom mu donc wuute na mais ñun nous wéru ci liggéey euh, xalé yi ngi fi liggéey wuñu liggéey la wax de waxuma xey mun nga xëy te ñun li ñu wax moy liggéey bobu yoonu liggéey bobu dañ ko tabax ba mu ñor ñor na ñor na te buñu téggé ay politique bu wéru ci loolu Sénégal kanam rek lay def parce que amna exemple yi nga xamné ne du wurus am du pétrole moo tax réew am kom li am li tax réew am kom moy liggéey liggéey nak dañ koy organiser nak fi nak organiser wul liggéey organiser wul euh, wax ji e am nañ am ay réalisation mais réalisation yo bo xolé lan la indi mën nañ gis ay infrastructure mais infrastructure bala muy gën am économie bi dugg ci économie bi mooy emploi muy créé yooyu défait, am am-am ci am-am bon, mooy tax ba nit ñi mën a jënd bu fekkee loolu amul mais ne, jëriwul dara ci économie am nañ tabax mais loolu doyul doyul de infrastructure moo doy mooy économie nit ñi ñooy liggéey am jënd am di jënd loolu mooy doxal économie endettement endettement mënul ñàkk mais endettement bi nga xam ne ci loolu rek ngay wéeru doo dem fenn man li dañu ne euh, liggéey foofu la ñuy wéeru liggéey nañu organiser liggéey liggéey boobu mooy soxla xaalis mais ñun dañuy jël xaalis après août euh, liggéey bi nga xam ne dañ koy dañ koy indi ak xaalis bi parce que financement yi am dafay am condition toujours te ñoom dañuy indi financement nee leen ne suñu entreprise mooy ñëw def te ñun ñuy leb ñan ñooy liggéey ñi fi nga xam ne nag euh, dañuy leb dëgg la bu ñu jëlee États-Unis dañuy wax ne et euh, état bi dafa dafa endetté moo gën a endetté sax Sénégal mais endetté vis-à-vis de qui États-Unis endetté vis-à-vis de ses propres entreprises et ses propres banques ñun nag day fii la ñu

ci fànn yëpp mën nañ organiser programme production production boobu mooy indi li nga xam ne dañ koy jaay mu am valeur te loo liggéey nag te mu am valeur mën na mën nañ ko mën nañ ko jaay te bu fekkee mën nga ko jaay rek xam nga ne mën nga mën na dugg ci kaw